mu daal caaxaan ci miiru soxna asugaan bi waaw ñu ngi koy defar nii lii fi mu nekk nii mooy liggéey bi xam moom la ñuy def ci miir bi ndax daa mel dañ ko bëgg gën a yokk yokk doole lii nag laaj naa ko téeméer yoon waaye ma laaj ko jëriñ lii mooy lan mango grain moom lañ jaxase ah, waaw waaw pour mu téye ko ah ah barbatine moom ba ma ko déggee ba léegi mooy kon mooy ciment bu ñu xóoyal ok ah meew de bu xawoon a weex de ma ne may ma ci benn kopp <laughs> waaye mel ni biir kon naan moom li nga xam ne barbatine la waaw mooy leen ko ah kon nii lañ koy wër macha allah lii mooy barbatine macha allah loolu du lamb nii. Hmm, ko gaan jaajëf dañ kon dañ koy sotti maanaam ciment muy eh, barbatin ba mu ba tafu ci miir bi bu ko defee ñu doog ko jël grain de bi grain de grain de sel bi grain de bi waaw mooy mooy la ñuy xooyal nii daal ko ciy def yal na suñu bam barkeel bu baax a baax a baax ndox mi nga dégg suuf ndox mi nga xool ci biir ndox mi. waaw daa tax suuf de. waaw góor. déedéet loolu nañ bàyyi ñu ko mën nii waaw nañ bàyyi ñu ko mën waaw waaw waaw liggéey bi noonu rek lay demee waaw ñu ko mën rek ñoom niñ féete tam hmm. war a mel ni ko soxna si bëggee féete leen ci foofu bu dee jëlim ndox wala jëlee béton bàyyi faal yaa ngi rek a war a ni ko soxna si bëggee rek waaw noonu lay jaajëf faal waaw ndox meeg yoon ak béton waaw bu kon kon feer kon nii hmm. ah d'accord Ferry yaa ñëwoon ni ngay seen ni waaw ah. léegi jubóo nañ fer fer de huit la ko ma fer de kii dëgg la léegi foofu ñu xar yooyu yëpp <laughs> liggéey métti liggéey jox ko xaritam bu ko jox sa xarit <laughs> <laughs> sima sima sima Imaamul Wara Imaamul Wara Imaamul Wara bese bese bese baana baana baana baana baana baana waaw baax na bés bi baax na Imaamul Wara góor maa lay laaj waaw doxul wara doxul wara doxul wara ndox mi daa matoon. ndox lay laaj ndox lay laaj ndoxul wara ndox ak si maamul wara ndoxul wara si maamul wara waaw waaw ndoxul wara dama may ko fay ndox waaw doxal kay ndox ndox leelaaj ndoxul wara eh, ndoxul wara imamul wara liyono xeru wara tugul wara yow dina la tombal wara lay soxna se soxna se ay soxna sa gaawan borom ci ndiiri ñëw waaw man de sama yaay nañ ci maamul wara ilaale ilaale mashallah I'm good mashallah mashallah afa mu dang na fay fëgg നിങ്ങൾ ത്രോയിലുണ്ട് ബായ ത്രോയിലും വിഷയ സാധനം ത്രോയിലും കൂടി ത്രോ ക്യാമ്പ് അനോ ഞാൻ ഞാൻ ഞാൻ നdox ndox